rek fi nga xam a accès bii di boulangerie jaune utali fi nga bu entrée bu yi na mu jaari noonu utali fi nga xam mooy soox liberté euh, pour ñu bàyyi ko si deux ko deux voies liberté euh, deux voies si a ko booru aussi intersection bu soox liberté fooy mën a jógee da ngay patienté su ko defee aussi am nga bi yéen ñu na mu progressé utali fi nga xam moom mooy intersection deux voies amitié da ngay xaar bi laata nga utali fi nga xam mooy école de police boo xalaat nga koy defee vers l'échange de Lour Sall wala boog nga bàyyi ko foofu lay jël avenue Dial Diop euh, avenue Dial Diop jaare ko Grand Dakar intersection zone A et B maanaam ñu bàyyi ko fi nga xam mooy Grand Dakar dañuy patienter laata ñu dugg zone B zone ko weesoo aussi ñu bàyyi ko ñaari tali aussi distancé par là faudra patienter su ko defee aussi cette file de voiture au ralenti les progresser vers le rond-point Place Ouly foofu c'est le point de ralliement des véhicules yu bàyyi ko corniche ba jaare ko fi nga xam moom mooy université am Pateba ak ñi nga xam ne dañoo bàyyi ko booru fi nga xam moom mooy Colobane jaare ko ci rond point caisse sécurité sociale zone ko weesoo la voie libre mën ngeen ko jaare Kennedy hôtel Place de la Nation ngeen doogu wéy seen progression sur les allées centenaires par souci vers la RTS Ah, Mantoulaye. waaw kay ba ci kanam Aba su ñu xooli machine.

marathon Eiffage Dakar bu mag bi dellu si na 20 ak novembre 2021 musée des civilisations noires ak grand théâtre national inscription randonnée pédestre be kit stadium bi kenn du fay dara francs pour les kilomètres francs pour le semi-marathon 10 000 francs ngi bokk ci marathon bi ngeen jot gaaw seen sac coureur seen dossard seen maillot de course bu ngeen yegsee ci arrivée bi daal di jot seen médaille mën ngeen a gagné ba 3 millions de francs CFA ak ak yeneen i loo ak stage marathon ba ci musée des civilisations noires bindu leen marathon Dakar point com ak supermarché Auchan yi dig daje 20 ak novembre marathon Eiffage Dakar. Vous voulez aller voir un match de Sadio Mané à Liverpool? Eh oui, achetez un produit sur www.oumouexpress.com et gagnez un billet d'avion pour aller regarder Sadio Mané à Liverpool. Plus vous achetez, plus vous aurez la chance de gagner. Dugg leen ci www.oumouexpress.com. Saa yoo fa jëndee mën nga am wërsëgu gagner benn billet avion dem cette année match Liverpool ca Angleterre ak Sadio Mané. Sadio Mané dalal la nga nekk ganam mu yóbbu la ci tribune yi boole la ak ñëpp nga daal di gën a jënd rek gën a yokk sa wërsëgu nga bul xaar kenn ci àdduna jógal nga dóori li am solo du dayok wërsëg bi nga am waaye nan nga koy mën a jariñoo bés bu jot kaas ci kaw kaas tàmbalil ak cawarte jeexalal ak yokkute ak xeetu cafka bi lay jox kàttan cafka gàncax bi dara raxul bu Nescafé classique lépp ngi tàmbalee si benn Nescafé léegi sa stiku Nescafé juróomi dërëm rekk la mbaa pare ngeen pour marathon Eiffage 2021 daw si leen gaaw jël si seen i dossard ak seen i sac coureur les 18 ak 19 novembre 2021 ci musée des civilisations noires ak seen pièce d'identité ak seen justif d'inscription randonnée pédestre bi samedi 20 novembre lay doon à partir de 8 heures ak animation ak Kids Stadium à partir de 10 heures départu marathon bi ak semi marathon bi ak course 10 kilomètres bi dina am le dimanche 21 novembre à partir de 7 heures ci Grand Sénégal ak musée des civilisations noires ngir bépp leeral wooteel ci 33 885 13 46 33 885 13 46 marathon Eiffage Dakar daw leen ci biir xolu Dakar. ak jeu méga teral bu Expresso activel say forfait li ko francs ci étoile di connecté wu di woote teg ci di gagné waaw waaw ay enveloppe 50 000 francs CFA ay smartphone ay téléviseur LED ak li jigéen ñi bëgg muy parure en or. vous pouvez aussi gagner un billet Dakar Dubaï Dakar ak frais séjour plus 3 millions argent de poche wala sax 10 millions de francs CFA wala 4 4 Ford Edge bu bees tax aussi augmente tes chances de gagner. Expresso. À tous les winners, à tous ceux qui savent que la seule façon de gagner, c'est de ne rien lâcher, de toujours y croire et de continuer à se battre. Il est l'heure de le prouver. Avec le jeu Mega d'Orange, envoyez Win au et répondez au quiz pour gagner une des quatre voitures Toyota, une magnifique Villa Calia, francs par jour, 1 million de francs par semaine. Plus vous répondez, plus vous jouez, plus vous avez la chance de devenir un winner. Envoyez Win au 22722. Orange. ci fin d'année bi Samsung daf leen pare promotion bu rëy ngir ngeen mën a bànneexu ci ay fête yu neex ànd si ak seen i mbokk fii ba le 30 novembre jëndal Galaxy A12 bu 128 giga ngir gagné ay téléphone réfrigérateur ay télé 43 pouces micro-ondes ak yeneeni surprise yu rëy am ngeen lu tollu 200 yu ngeen mën a gagné ci promotion bu neex bi te xéwale daw leen gaaw ci bépp point de vente agréé Samsung ngir bànneexu ci offre bi pomme bi dafa ànd ak tërëlin ci kaw xéwal yi des boo nekkul free mënoo bokk ci tombola bu rëy bi leen Ilimax indil kon fippul jogal te jéem a gagné benn million bés bu ne ñaari voyage ca Dubaay weer wu nekk ñaari terrain weer wu ne ak benn kër activel ci sa portable Ilimax semaine ak mois yu bëri ci my free ak ci Jazz 155 Jazz kon jogal ci sa bopp ñëwal ci mouvement bi di free waa yéen yéen a ngi ci yéen daal xam naa ni doy ngeen waar bu ngeen bëggee di wéy di seetaan série yi leen neex di ngeen dakkal piraat li ngeen di def xamul leen yoon da koy tere te sax jëf ju ñaaw la te it mën naa lor suñu koom-koomu réew kon borom télé yi producteurs yi maanaam ñi ciy def seen xaalis ak itam ñi ciy joué dañu mën fayeeku te su boobaa mbooleem nit ñëpp ñiy daan seen doole ci wàllu télé fii ci Sénégal ñoo ciy lor ndax si dolli suñuy doom yi nar a programme télé yu méngoowul ak seen mooy di ci teg wala di ci seetaan ay programme yu ñu sàcc Dispatch-moi. Yeah. bésu tey bii ba 23h59 rechargé leen ak bonus crédit bu 600 pour cent toute destination boo leen crédit li ko francs jëm kaw soo leen rechargé nag li ko francs ba 1499 francs orange dina leen jagleel bonus crédit bu 200 pour cent li si dàqati mooy su dee da crédit jaarale orange money si jees 144 jees wala seeni application orange money wala orange et moi orange yokkal bonus crédit si diggante 500 ba 1499 francs waaw waaw bonus toute destination ngir woote si bépp réseau Sénégal promo soumise à condition rendez-vous sur orange.sn pour plus d'infos Orange vous rapprochez l'essentiel Orange waaw ah, waaw dafay yokk de. si la de. ay agrément. waa ji nga ne ne si. ndaw si. Mhm. ah li ma ci xalaat. Mhm. mooy yërëm naa ko lool de. Mhm. mais am na lu dalut sama xel ci moom parce que nit mënta dund situation yi te amul benn mbokk bu la man assister. Oh. loolu benn la. ñaareel bi ci des. def naa ëmb bii mooy juróomeelu bantam. bu ko yàlla ko yàlla sàmm ba mu génne ko ci jàmm ak salaam. te nee na saa bu ëmbee waa ji nii la koy def. saa bu ëmbee waaj ji di abandonné ko. toroxal ko toroxal ko ba mu am doom bu amee doom beesaat noonu mbir mu feeñaat kanam gi. kanam gi biir waat waa ji fanaanaat ñu nekkaat ci. Oh. moom it nag lan la. te dafa feebar. diabétique ah. day piqûre ba bëccëg. ngoon ci ay kàddoom ci li mu wax. Mm-hmm. war naa am doom ci mois de décembre bi waaye bu la kenn yërëmul nga yërëm sa bopp. dëgg la sama boppam la gënal lu bañ naa la. loolu benn la ba leen ci des waa ji itam jëkkër ji. li tax nanguwut a toog fenn jubul. ku nëbb aawa kay moom. nëbb ah. ak ñàkk mën a toog fenn takk jabar mm. tay kay ñu tay ñu tuux fii. Mm. suba ñu jógee fii tuxu. suba mm. ñu tuxuwaat fenee. jubul di daaw di daaw. dëgg la jubóo jubóo de. waaye ci côté seen relation moom tey ceeb dafa baax. daf daf caa non man kay du ma taxal la ndaw si li mu naan. du ma ci wax fii yóbbu ma fii. waaw yóbbu ma fii. Mm-hmm. mel ni ku minimiser loolu. Mm-hmm. ak loolu am na jigéen ñoox xam bu ko defee benn yoon du ñaar. yàgg nañ ko ko def. Ah. ñun kay fi ñuy taxaw mooy. Souleymane Faye dafa comme wérul comme wérul ñu fexe nu ñu mën a. xaw ja ut ko ko jàppale. Hmm. ak feebaram mu mucc ci jàmm. ut ko jàppale jëkkëram la ñuy woo gendarmerie ñooy woo jëkkëram forcé ko pour ñu jàppale ko. mu jàppale ko rek pour mu accoucher. fu ñu bàyyi soppi ñëpp et wala kaana. Hmm. non non waxuma ci dëkk bi sax waxuma ci dëkk bi sax toppatoo ndaw si. la waxuma ci dëkk bi sax. parce que comme dëkk bi moom xam ne jëkkër ji ma nga ca. waaw comme xam jëkkër ji ma nga ca. yow na bi mais li comme day accouché décembre mhm. ko xool nu ñu koy jàppalee ba ko def na waree fam wala ko deful waree fam ñu mën ko euh, mhm. boo xam ne du am danger. d'accord xel mi daal. d'accord na ci des nag après nag moom mu réglé ko xat. gis nga gis nga waa ji mais pour l'instant comme ñëw nañ jàmbat rek nañ ko jàppale ci accouchement bi. muy ndaw si di waa ji ñoom ñaar kenn sa morom waa ji même lu mu daw responsabilité am yëpp bañu ndaw si parce que ki nga xam ne saa bu ëmbee nga bàyyi ko fa. Hmm? terewul bu demee ba wasin nga delluwaat mais koo bëgg tamit. waaw koo koo mais defal naa dama dama la bëgg expliquer dama la bëgg expliquer. dama la bëgg expliquer bañu ko bañu ko bañu ko bañu ko parce que saa bu bu ndaw si amee doom mu ñëwaat. waa mais looloo bañ eh, ngeen dem ba am ñeenti doom ci loolu. maam xam saay saay ëpp na loolu loolu du mbëggeel. xam nga lan la dafay daw responsable. man de pour man loolu du mbëggeel loolu du mbëggeel du day daw responsable amul am na ñoo xam ne day daw responsable. mbëggeel ah. ah, nii xam nga day daw responsabilité man nga daw sa responsable bañoo mais da ngay daw responsable. kon matul jëkkër maam. waaw peut-être peut na bañ a mat jëkkër. matul a mat jëkkër mais day daw responsabilité. mais le gars moom il est irresponsable. mooy loolu mooy li benn a demee sa njaboot. maanaam pas naa ko tegee ne. Mhm. mais doom. yi mhm. am. Mhm. waroo mën a toog benn semaine. te doo nemmeeku sa doom nekk. te gisoo leen parce parce que benn. dafa ci góor ñoo xam ne dañu mën a daw responsabilité. benn bu ñu la fasee. te mm. desera nag sa njaboot. Mm. maanaam dañuy fet fase ay doom bari fi bari na fi. loolu mooy njëkk daw responsabilité. wala mm-hmm. wala di takkee fu nekk. Mm-hmm. takk fu nekk bàyyi fu nekk mel na yow say ku yor tool di say naafi gerte yi mm. ndaw si tamit dafa benn way bu Souleymane fay way dellul ci say mbokk balaa ñu lay delloo. Mm-hmm. gis nga jafe-jafe ak nu mu mën a toll ak nu mu mën a mel mi ngi ci àdduna. am na foo ci toll foo xam ne dellu ci say mbokk ndax boo feebaree di nga dellu say mbokk mhm. loo wér wér mhm. boo amee loo ñàkk-ñàkk di nga mës a dellu say mbokk bis boo deeyee nag moom say mbokk ngay dellu mhm. comme toll nga ci jafe-jafe te déjà moom elle est diabétique benn ba pare nekk ci état de grossesse très avancé pour man waroon na mos au moins jege benn mbokkam boo xamante ni si dina ko mën a dina ko mën a dékkuwaale ci yenn yi parce que say mbokk lu la jëpp-jëpp dina ci am kenn koo xam ne dina la soutenir mm-hmm. Mm-hmm. nga dellu ci say mbokk mm-hmm. ñu téyaat la jàppale la ba nga génn ci situation bi nga nekk boo ci génne nag sa jëkkër ñu ko taaj ko wax ak moom mais waa ji moom ak loo mën a wax xaw ma nag parce que xam nga jigéen ñi rek naa xamal benn affaire jigéen ñi benn jukkoo ngi ci ñoom bu ñu meree dañuy jël dëgg ñam ñambaas ci ay fen ba mu mel ne dëgg parce que jigéen ju mer moom ak jigéen joo xam ne am na am nay problème des fois nga koy déglu sax da ngay war def ndànk. ci tee ci teelu boo mm-hmm. teeyul rek. mën ngaa def musiba wala wala mën ngaa am musiba bu génnee ci ëmb bi it. ba demaat ba defarwaat fu ko waaj woot mu dem wuyu ji. day wuyu ji mm-hmm. moo tax nag diggante ma waaj moom tey rek doy naa sëkk nii doy naa sëkk na ma may sama baat doyal naa. moo tax ma ne kii dafa nekk seytaane kii kii mënul bàyyi kële. Mm-hmm. en tout cas en tout cas bëgg naa focaliser wu xanaa kay jàppale ko. bëgg naa xam daal bëgg naa xam daal jàppale gi moom yittewoo na ko. dañ ko jàppale ba mu mucc ak jàmm. parce que su paree nag day dellu ci waaj après ñoom ñaar. mbokk mbokk taaj leen wax ak ñoom. non mais xam nga xam nga itam man ànd naa ci li Mantoulaye wax nañ ko sauver. Mm-hmm. mais itam faut pas ñu topp ndaw si ci détresse bi mu nekk pour jox waa ji dëgg comme ndaw si wax dëgg la. Mm-hmm. waa ji yoon da koo war a woo. gendarmerie da ko war a woo wala police. dij ko mu jël ndaw si en charge. par la force parce que jabaram la benn li nekk ci moom moo ko ci def ñaar. mais nekk ci dëkk bi daw fu la neex jël jigéen sànni ko noonu. Hmm. surtout njaboot gi sax. mais mën nañu ko contraigner pour mu mu mu ñëw taawul am na métier yoo xam ne am na moom rek moo ko fiy def. ku ci def itam nekkul ci ñoom abandonné seen na say doom moom. non xam nga sa wareef. xam nga am na yoo xam ne du ma ci sa diggante yàlla la Mm-hmm. am na yoo xam ne ko bañ a balaa mi dëkk ak sa jabar ci benn appartement nga jékki-jékki génn dem. Mm-hmm. man mun naa la ci bañ a parce que mm-hmm. yaa xam li tax nga def ko. surtout sa diggante ak sa jabar. ci am na noo bañ a réagir tu génn ba tribunal àtte. bu la yóbboo ci tribunal bu bëggee baat nga may ko baat. souvent am na góor ñuy régler noonu seen situation. man loolu duma leen gaaw a blâmer. parce que nekk fa di xeex. di histoire. mais li ma li ma li ma li ma li ma li ma mënta li ma mënta dégg mooy comme ni waa ji def cest fase woo ko. Mhm. téye woo ko te bàyyi woo ko. wallaay fayuloo ko location yóbbu woo ko seen kër yóbbu woo ko fenn bàyyi ko muy taxawaale ci mbedd mi ak juróomi doomam. fu mu am doom nga ñëwaat sa gàtt. loolu mooy lan kooku nag yoon moo moo ko war woo ni ko yow li ngay def dëggatu yoon te waa ji waxul ndaw si dëgg xam nga waxul ndaw si dëgg. ndaw saa ngi naan waa ji day faraatu ma ne kuy faraatu doo am oto di ko dawal. Hmm. Hmm. ba day hmm. euh, euh, kuy faraatu xamul appartement meublé. ne day dal ci cour rek. waaye yow dix mille par jour vingt mille par kuy faraatu Baye Cheikh. xam appartement meublé. ah. journée vingt ak journée dix mille. di dëkk Mamel. dëkk Mamel xam na tuut. ma mel la dëkkoon. xam na de am na waxaale appartement 500000. kon waxul la si dëgg. fi mu ko fi mu ko yóbbu xam na ko. waaw ah. bu fekkee non waa ji kay ñàkk dëggoom feeñ na ci. takk ku muy ñaareel te xamul ko ne am nga ah, ñaareel nga. bu fekkee li ndaw si wax lépp dëgg la. aussi am nañ am na am na aaw. loolu bu fekkee li si wax dëgg la ci li ndaw que ndaw si mhm. itam jigéen ju ne léegi nekk Ndakaaru gi te mënoo présenter ah. ki sax mu ngi fi. waaw dëgg la fa dëgg. xanaa bu doon association Paawu ñaankatu jabar yi nekk Sandaga sax ñu ngi fi. mën nañu laa réagir. moom nee na tantam association Paawu ñaan jabar Euh. mais pas yooyu takk suuf gu am Sénégal ñoo ko takk. da dem da rek. da dem jël fay leen ku nekk dix mille dix mille. ñu dem takkil hmm. la. ñaar nga jox leen gura ah, la nga jox ñu indi certificat de mariage jàkka. moo takk suuf sa aaju certificat de mariage. non neex rek. tuwaat ci suuf la waaw. Ah. yooyu association yi bëri na ci réew mi de. cey. boobu de maa ngi koy doog a yëg. ak association ah parents d'élèves ah parents d'élèves yu dëng yi. waaw waaw ñu gis benn parent rek ñu génn ci biir. bi 5000 kii ni ko sama doom. en tout cas madame Dramé bu dee yaa ngi dégg. ak képp koo xam ni yaa ngi ñuy dégg mën ci dara. Mm. ci accouchement ndaw si. talal nañ la loxo te yàlla tax. loolu de mooy urgence bi mooy urgence bi. mooy urgence bi parce que ah, yitte bi dëgg dafay nekk ci. utal ko solution utal ko solution. Mm-hmm. ci mucc gi. wallaahi dëgg la mooy keroog li ma doon wax rek ci suñu ndaw soosu alaaji fi ñu woon. Mm. ndaw su fi ñëwoon fanaan fi. waaw. te mu ne ko fat la bëgg. waaw ku ko fat. Mohamed moo ko yóbbu këram. Mohamed Jaw. Mohamed Jaw moo ko yóbbu këram. parce que mënu ko woon bàyyi weekend bi mu fanaan fii. waaw amoon nañ solution benn femme bu ko waroon yóbbu ci daaraam. waaw Mohamed ni ma fat ko le temps que am na sax kenn ko waxoon ne ko. boo ko yóbbu sa kër fanaanoo ko tey bu subaa ma jël ko. mu xëy di woo kooku téléphone bay sonné ba sonn kooku jël waaw ma ne ko jarul di woowaat parce que moo tay bañ jël. Mohamed ba mu ko fanaanoo ba dimanche Mohamed dafa war a xëy suba dem foofu ñu koy yóbbu. Mhm. mu ne carrément Mohamed. Mhm. Euh, may ma paas ma dem bërëb temps samay mbokk ña nga fa. Mhm. di ma jëm ut solution su ma ko amul ma ñëwaat ci yow. ca la ko Mohamed gëj a gisee. mooy la leen doon wax rek wax ko dellul say mbokk fii ba suba. taxul woon mu dellu fa. fii ba suba taxul woon mu dellu fa. moom kay li ñuy ñaan mooy mu mucc ci jàmm te bu muccee ba da yaa ngi ñuy dégg. mënoo yore xale bi te yow nee nga mënoo ko yor. Mm-hmm. la musal ba mu baax mën na koo yor dina ko yor. moom nee na alaaji kii dara dama wóorutul ci moom. Mm-hmm. dara daf ma wóorutul ci moom. boo buñ déggee ni ngay waxee xam ne jàng nga au moins am nga dara loo def sa bopp bi. donc bu fi jéem a tànte dara ci xale bi. mënoo mm-hmm. ko yor la musal ba mu jëkk kër goo fëgg sax teg ko fa baax na. wala nga yóbbu ci sëriñ ñu tëyal la sa doom. bu ci jéem dara. loolu moom maa ko parce que boo ko jéemee di nga ko rëccu yàq sa àdduna. gën a siiw nag. da bañ siiw waaye boo ko defee dara di nga gën a siiw parce que bakkan dafa fort hmm. loolu daal laa koy yóbbante mi ngi déglu mu ngi déglu waaw hmm. ngi déglu mi ngi mi ngi déglu de léegi nag ah ndaw si ah hmm. ci nañ ko wutal pexe fu muy fu muy amee doom pexe de lañ ci bëgg nañ toog nañ ba mu jot pexe daal mais balaay boobu fu mu nekk am décembre bi la war a décembre la war a mais pour l' instant au moins ñu dara xelam ne ko hôpital bii. jël nañ la fa en charge léegi léegi. Mhm. sa échographie di nga ko fa def. Mhm. sa bilan di nga ko fa def. Mhm. accouchement bu jotee nu muy accouchement bi demee nañ la jël en charge au moins xelam dal. xelam dal waaw surtout. parce que ëmb ak xel mu dalul àndul. ba pare nag ci diggante bi enquête ko rek xamee mbokkam. enquête ko xamee mbokkam. man na ne de gars yi fi wax ma naan sama papa sama yaay dee. gis nga boo demee village fekk gis nga gis nga gis nga gis nga Mantoulaye. Mm-hmm. gis nga genre couple yi. Mm-hmm. yéen xool yoo xam ne moo leen moo leen njatta njatta rek à cent pour cent. Mm-hmm. mais yenn saa yi laaj ngeen dal ci de. ngeen dal ci. parce que yii nii yii ay kàcca ngi ci. Mm-hmm. lii dafa yomb. nit mënta nekk sa jëkkër bàyyi la ndakaaru ngay taxawaaloo sa ñeenti doom. Mm-hmm. après ëmb ba dis gan ba cëgg desul ci guy. Mm-hmm. nga ñëw ci rajo pour ñu jël en charge nañu waxante dëgg. Ah. gis nga affaire naxante gi dafa am fu muy yem. jëkkër ji nañ ko wax dëgg. ndaw si yërëm nañu ko mais ndaw si itam li tax mënut a benn mbokkam. Ah. am na ma ne am na luñ ñu waxul. am na lu am na lëf. gis nga ñun dañu bari yërmande trop mais yenn saa yi itam duñu duñu tribunal mais di wax dëgg ci li nga xam mooy réalité war a am ci sëy dañ ko wax di wax it nag gis nga ndaw si nañu wax dëgg ndaw si nañu wax dëgg nañu wax qu'est-ce qui se passe réellement ba tax jëkkëram di ko traité ni nañu nañu wax ren moo am ba nga xam ni mënuñoo woon di jaayam nii yaayam nii papam mënta am fu mu jëm mm. mais lan moo tax qu'est-ce qui se passe ah. léegi nag bu fekkee da ngaa tës ay mbokk pour ànd ak benn góor ngeen dem ba jamono tëleen yéen ñaar après nag di ko jéem a trouver solution am na quand même ñu ko gën a mérito yërëm nañu ko mais yow man la antanoo ñaari doom chaque jour ngay taxawal ak moom Dakar te yaa gën a nekk ndaw si en l'aise antanoo ko léegi nag yow am nekkoo en l'aise ba noppi yow ñeenti doom ëmb kaneen di dox te yow góor bi la ko teg ni yow oto bi taxawal biir Dakar amul benn mbokk mu mën ku góor kooku ni ko hey kaay sa benn càmmiñ bu ko mën a kaay je suis désolé ndaw si ah. waxuñu dëgg. ma ne que rasulilah ndaw si waxuñu dëgg. nag. ñu dañuy dañuy masturbé suñu maye ndaw si ngay wax ni mantulaay te naan boo amee doom bu ko sànni. ndaw si waxul dëgg ki mu doon liggéeyal ci salon salon ñëw na fi un mois dénoncé ndaw si laataa ndaw si di ñëw. Mm. ni am na koy liggéey ci sama salon dañu dem ba am malentendu léegi dafay génn ci mbedd mi naan man damay jël ay jigéen di leen def loo massage plus. Mm. ndaw soosu ñu téye te sam parce que wóoruwuñ ko woon deux mois après la ndaw si soog a ñëwaat ni dañ ma doon def loo massage li ma séquestré ma ci génn kër dëgg dañ doon ànd ñoom bokk benn cabinet de massage après ñu dëngoo moom mu juum ëmb ñuy werante ñoom moo tax ba waxee man la ndaw si waxul dëgg kii nii itam di wax waxul dëgg waxuñu dëgg dañ ñuy manipuler dañu ñuy manipuler. <laughs> billahi maa la ko wax. ki ki man lay di wax ki ñëwoon kii naan dama ëmb. Mm-hmm. dañ ma séquestré ma doon ma doon liggéey. dégg nga li mu damaa doon doon ñëw ci kër di liggéey. Mm-hmm. jànq. laa jubóog ñoom soixante mille ma ñëw ci kër gi ñu jékki-jékki ni ma dootul génn kër gi te booy def massage dañu am client yoo xam ne dañu defal massage plus. Mhm. ci massage plus yooyu ci laa ëmbe te waxul dëgg. mais moom xam na kër googu kay kër googu ne ne ne yow police wala. waxul dëgg parce que avant muy ñëw laa la wax ki moom salon bi ñëw na fi deux mois avant moom. pour dénoncer ko ni am na benn employéem bu taxaw ci yàq deram déggu li ma la wax de. Mhm. mais kon kay ki moom cabinet de massage bi. ñëw dénoncé ne am na employé bu koy waaj a dénoncé la mu wax parce que nii ak ñi moo leen boole deux mois après mu soog a ñëw ni moom dañu ko hmm. wax ni cabinet de massage la ñu amoon. Hmm. mu ne dañu maa jël comme mbindaan ci kër gi te moo moo nekk moo nekk noonu ëmb moom la Mouhamed yóbboon ci këram. gis nga manipulation bi mu ñu def. kii ñii wax ni tey dañuy manipuler. mais boo dégloo kooku noonu ndaw soos. ba micro yi wàccee lu ma la wax histoire bi man gëw ma ko. doxul dëgg mais xam nga man damay taxawee damay taxawee taxawaayu. mais Mansour kii man taxawaayu dama taxawoon taxawaayu mu xale bi. Mantulaay li mu man taxawu laa taxawoon. man man la mu def la xale bi sosu. man Mantulaay li mu wax nii intéressé tu ma du moment li wax nii aaj Mansour hmm. li nga wax li nga wax man laa gën a téye sax. Ah, kan li nga wax mais Mantulaay mu wax. Hmm. nañ ko jàppale entre nit ak nit. nañ ko taxaw ba mu hmm. kii nii nañ ko taxaw ba mu rësine après lu ñu lijjanti ñu doog ko lijjanti borom jabet bi borom jabet ay mbokkam waaw dama ne dafa ñu lijjanti ko ma ne ko déedéet non dama ne ñoom après lu ñuy lijjanti pare day dem ci ay mbokkam lijjanti ko mais ñun suñu waree mooy buñ ko seetaan rek ba leen ko yebee sama otoman bu yóbbu ko hôpital jëkkëram intercepté ni ma foo jëmee sama jabar wàcce ko léegi bul ko yóbbu mën naa ko. non jëkkër jaa ngi ñuy dégg. ba jëkkër jaa ngi ñuy dégg. man nangu naa dégg loolu. gëm naa ne man ma tës naa am suivi. du moment où ah? mu mucc rek man naa mu mucc jàmm. Ah, wax dëgg de. waaw loolu jaa ngi dégg moom wax ñu dëgg. mais nekk ndakaaru gi te amoo fi mbokk ak mantulaay amoo kenn ku mën a intervenir ci sa sëy kenn kenn waxuma papa waxuma yaay mais càmmin ba noppi góor nga ëmb taaw mu abandonné nga am doom mu ñëw nga ëmb ñaari doom mu abandonné la ñeenti yoon ñeenti doom yu dox dem dikk bi nga ëmb mu abandonné waat la mm-hmm. à demain ba suba incha allah yàlla sàmm leen à